سارف الهمة لربي تعالى راجيا ساقيه بهما معيني ماسكا بالكتاب ماسك درير بيد الخائن البصير المعين وهو يدي ورماتي وكنوزي وبه أرتجن خياد الحروني من به راب مرودسا bin hanidin qaada taa'ian lahu amruni wa huwa fakhri wa urwati wa jalisi bi ahadi sidil mazah yal makini ahmadil hamidina madxawsi walirabbi bidawatil karukoni ya ilahi alay salli wa sallim maa lillawaah lilyaqini min sihaabil tabatahlo liwakilin qad hadahum binoori liggéey fi mu tolloon bi mu fi jógee 1945 ah, ak xutba yeeg lenn ci nataal yi nga xam ne day firndeel liggéey Cheikh Mamadou Moustapha Euh, ñu tënkaat tamit lenn ci xam ne mooy dunduk Cheikh Mouhamadul Fadi ginaaw bi Cheikh Mamadou Cheikh Mamadou Moustapha jógee firndeel liggéey bi jumaa ji fi mu tolloon ci jamono Cheikh Mamadou Mouhamadou Fadal 1963 bi ñu koy ibbi ak lenn ci ak dundam ak ay liggéeyam euh, ci dëkk bi euh, bi fi jógee tamit ginnaaw bi Cheikh Abdoul Ahad moom tam ak gën a àddinaam ak ay liggéeyam ay jéegoom ñu tënk ti lenn ci ak dundam tënk tamit ci liggéey yi nga xam ne def na ko ci jumaa nga xam ne lii mooy firndeel yokk bi yokkub jumaa ji ginnaaw Cheikh Mamadou Fadal ak uh, comme ni nga xam ne noonu noonu nañ ko xamee ci yoon wi ak liggéeyu uh, Cheikhul Khadim kër Cheikhul Khadim gi dim di maskanu Cheikhul gi ak bibliothèque bi mooy maktabu Cheikhul Khadim uh, ginnaaw bi xam ne Cheikh nga ne léppam ak ca xilaafam mook Cheikh ñoo àndoon nga xam ne Cheikh Abdoul Khadir moo nekkoon imam bi ci jamonoy Cheikh Abdoul Ahad ci 1968 ba 1990 bi mu fi bàyyi ko ci xilaaf ak si Abdul Ahad ak si xilaaf ak si euh, Abdul Xaadir ci diggante bu gàtt bi euh, ak liggéey am solo yi nga xam ne doon na ko taxawee euh, ci nekk si Abdul Ahad loolu lii mooy firndeel lenn ci ak dundam xam ne def nañ ab document bu yaatu boo xam ne ci kenn ku nekk dañ koy def ab document bu yaatu waaye bu tënk rek waaw bisimilah bi moo tax tamit bi fi si Abdul Xaadir jigéen ñu tënk lenn ci dunduk si Abdul Cheikh Saalih Mbàkke radiyallaahu anhum moom itam ñu tënk ci jumaa ji li mu ci liggéey ci 1990 ba muy ba 2007 bi mu fi jógee eh, yeesalaat gi koy yeesalaat ak yokkaat soral bi ak liggéey yi nga xam ne na ci biir jumaa ji ak ci dëkk bi ak eh, yeneen liggéey nga xam ne am na ko ci ay daaraam eh, yu sos yi nga xam ne am na solo ci liggéey bi xam ne lépp lu nekk dañ koo tënk waaye am nañ ci ab document bu mat boo xam ne ab jaatal la ginnaaw bi tamit Cheikh Mamadou Lamine Baara alhaaj moom si alhaaji Fadlu moom duñu tënk lenn ci ak dundam tënk tamit ci lenn ci liggéey yi nga xam ne def na ko ci jumaa ji te lépp nga àndoon ak yow euh, ak liggéey yi nga xam ne ay yeesalaat la moo xam ne def na ko ci penc yi ak ci biir dëkk bi loolu lenn la ci ay nataal yoo xam ne day firndeel liggéey boobu ñu tënkaat tamit lenn ci liggéey bi nga xam ne euh, Cheikh Sidil Muxtaar Mbacke def na ko ci moom tam ci liggéey jumaa ji yokkum ñaari soroor yi ak lenn ci ak dundam ak ay jaar-jaaram ak liggéey yu am solo yi nga xam ne doon na ko taxawee ci jumaa ji ak jumaa yi Masaalikul Jinaan ak yeneen liggéey yi nga xam ne def na ko ci biir biir dëkk bi ak relation yi nga xam ne amoon na ko ak njabootu lislaam gi nekk Sénégal ak yeneen kilifa yi euh, li tamit moo tax ñu firndeel lenn ci mit ci mag ñi nga xam ne dañoo nekkoon ak Cheikhul Khadim ñu tàmbale woon ko biñ ko mujjee def ci saa Mamadou Jaara moom moom soxna Jaara nga xam ne mooy magi sewul Khadim di ñu koy wooye magi mag Euh, ñu firndeel lenn ci ak dundam ay jaar-jaaram ak liggéey yu am solo yi nga xam ne noonu doon na ko taxawee euh, leen lii leen la ci ay bërëb yi nga xam ne ay bërëbam la muy misra ak ak saam ak yeneen bërëb yi nga xam ne xam nañ ko euh, naka noonu tamit ñu tànnaatoon kenn ci magi mag magi yoon wi moo taxoon ñu tàmbale woon ko ci ci soxna Fati Fati Ja Mbàkke nga xam ne moo mooy taabu Seyul Xadim lenn ci ak dundam ak ay jaar-jaaram lii lenn ci ay bagaasam moom am nataalam amuñu ko waaye tënk nañ ci ak dundam ak ñi nga xam ne noo la nekkoon ab yar ab yarakat ak ay yëngutoom yu bari yoo xam ne xam nañ ko euh, moo tax tamit tànnoon tamit lenn ci euh, waa daaray kaamil loolu yaakaar naa tamit ci lenn ci yi nga xam ne say mulaaxasaat yoo xam ne yoo ñu joxoon ca jamono yi jamono yi 2017 yaakaar naa waxoon nañ ñu def ay gëstu ci daaray kaamil ba ñu def ab ñu def ci gëstu ngir firndeel lo daaray kaamil def nañ ci ab document bu mat boo xam ne euh, ku ko bëgg am nañ fi moo tax eh, li lii mooy liste bi nga xam ne ñoo fi nekk jamono jii nii xam ne bi ñuy def kii bi lañ lañ ko firndeel nii ak lenn ci noddukat yi ak ñi nga xam ne ñoo fi jaar ci ay imaam loolu lépp ñu firndeel ko ci liggéey jumaa ji lii mooy leetar bi nga xam ne moom la suñu Mbàkke Buso bindoon ci jam ci jamono sëriñ bi ci doon sàkku ci eh, ñu may ko autorisation tabax jumaay Tuubaa waa lii mooy lenn leen ci liggéey daara mu xanamoon xidma ren ji tamit am na yokk yoo xam ne def nañ ko ci mooy gëstu nañ ci ñi nga xam ne ñoo yoroon barabu Seexul Xadim bi eh, andi nañ ci seen seen ñi ko jotoo yor ba jamono ji eh, andi nañ fi tamit ren tamit njaboot ak sëriñ sëriñ sëriñ ñëpp moo xam ñuy góor ñi ñu jigéen ñi ñu andi seen i tur ak seen i tur jigéen ak barab yi nga xam ne moom lañ nekk xam na dañ ko romb ne eh, lii mooy leen ci liggéey daal daara Moukhaddamatoul Khidma ci satal jumaa ji ak conférence yi nga xam ne moom lay am lii mooy lettre bi nga xam ne moom la sëriñ Saliou Mbacké radiyallahu anhu bindoon Euh, Cheikh de Muxtaar biñ ko ko wanee moom tam mu def ci signature boppam wane ne day firndeel liggéey bi xam ne lii mooy signature am ak si ñëpp yal nañu suñu borom dolli ngërëm ak yërmande euh, ren tamit dañoo yokk ci exposition bi dañ ko ànd ak waa Rawdu Rayaahin ak waa AYM mooy association boo xam ne dañ yëngu ci di bind ci yoon wi ak ci murit gi euh, ñoom ñu fi gaaral seeni téere moo tax dañuy jox kenn ci mbokk yi nga xam ne si mu daab Ablaay Ndaw mooy wax ci turug ay AIM waa Rawdu Rayaahiin bu ko defee mu jàllale seen kàddu. waaleykum ñoo lay nuyu di la bu baax a baax kon yi minal xayaatu seexul xadim la lenn la si dundu sëriñ bi nga xam ne xayaatu seexul xadim xabla xaybatul bahriya la moom leen fi gaaral noonu ak dirasatal xawlal muridiya ak almaratul muridiya fi daxwatil xadimiyati ak minal xikami seexul xadim ak taarixul màggal ak min fatawa ak masalikul jinaan ak euh, minal wasaaya ak yeneen téere yoo xam ne daanaka rawdu euh, gaaral leen ko si biir exposition bi ñu lay siyaare bu baax a baax di am mbégte si sa teewaay. Mbacke lii mooy euh, téere yi nga xam si association des écrivains de la Mouridia ñoom ñoo ko bind. bii nii waaw kay bii nii sëñ Cheikh na Monsieur Ahmadou Bamba moom mi président association ki président d'honneur bi moom moo ko bind. bii nii wacc moom moo ko bind nga xam si moom secrétaire général la moom moo ko bind sëñ Bay Jaxate bii sëñ bi moom moo ko traduit ci anglais mooy xaayut rabbaaniya bii ni sëñ Alla Dieng mooy téere bi mu doon wax naan nettali yi mu doon kii ci kii moom moo moom moo nekk nii mu nu tuddee la serviteur waaw waaw ñaari ñun ñoo ko taalif ci sëñ bi ñaari ñoo ko ci sëñ bi yi ci wolofal la bii tamit sëñ bàyyiloo muy moom moo ouvrage bi nekk nii bii ku ñuy wax sëñ Doudou Mané Diouf moom moo ko bind ci maam Cheikh Ibrahima Fall ren ji la la génn bii tamit téere sëñ Cheikh Amadou Bamba la mu traduit ci français bii tamit moom moo nekkaat nii ci arab bi yi tamit ay ay téere yoo xam si bi moom moo ko euh, taalif bi tamit sëñ bi la waa kay waaw xet man ma ñoo ko bind ne hmm. kii ki sëñ moom moo ko moom moo taalif moom printemps de la Guèye gis des yëpp ay téere yoo xam si mbokk taalibe ñoom ñoo ko bind bi sëñ Aliou Mbacke moom moo ko bind ci Covid bi ak kii bi sëñ Abdou Khadir Gueye bi nga xam si jamono yi la ko sëñ euh, docteur Cheikh Gueye Enda génne moo euh, Abdou ci professeur Djibi jaxate moom la doon présenté bi Masalik ci jamono yi nekk te waaw moom dërëm ngërëm li ci bëgg maanaam yoonu bi ñi nga xam si dañuy jëlee alal jëlee ko fu lew ba dugal ko ci ci ci yoonu bi nga am ndërëm boo xam si waaye da nga ci yoon ci xam si da am ngërëm moo tax mu dërëm ngërëm jëlee ko nag titre bi ñu ngi ko jëlee si Mame Cheikh Anta waaw waaw ñu ciy leeral nag euh, nan la nekkee euh, euh, solution ci wàllu économie Sénégal ngir mën koo kii mu nekk téere am solo rahmatullahi wa barakatuhu sëriñ bi ñu ngi lay nuyu te di la siyaara di la ndokkeel di la masawu coono ci liggéey bi nga xam ne moom la la Cheikh Mahmoudul Muntaxa dénkoon nga jiite ko ñu agsi ba fii muy liggéey bu mucc ayib ñu ngi la ci masawu coono te di la ci jaajëfal di nuyu it ñi fi teew ñëpp di nuyu sëriñ Cheikh Khadim Mbacke mu Cheikh Mahmoudul Muntaxa mi nga xam ne ñëw na teew eh, jataay bii nga ñëw nag yàlla na yàgg yàlla nañu ko teewee déwén euh, suñ koy tënk mooy dangay ngay jëwri borom liggéey bi yor kàddoom ki nga xam ne moom la ñuy liggéeyal di sëriñ bi di sëriñ Touba ki ko fi nekkal di jëwri borom liggéey bi soo teewee fii ngir seere kàddu yi si ñaafe it mi ngi ñëw man mu agsi ngir jaajëfal sunu bokki taalibe yi nga xam ne ñoom la ñuy àndal liggéey bi ci biir daayira Muxaddamatul Xidma liggéey bi nag dafa séddalikoo ay ay pàcc yu bëree bëree bëri yu yaatu ay mbooloo yu bëree bëri yi nekk ci moo xam ne daanaka lim bi mu ne su ko xam mana ëpp na junni nit ñu séddale ko ay commission ay commission yu bëri ci biir am na ñoo xam ne jubbanti sàppe yi jëm ci barab bi rek la ñuy liggéeyee am ñoo xam ne bale setal la ñuy liggéeyee am ñoo xam ne di wër mi ak dimbale nit ñi ci tere leen tamit ak digal leen li nga xam ne moo moo war ci worma ji am na ñoo xam ne faj ak dimbale nit ñi wéradi la ñuy liggéey muy mbooloo mu dul jeex am na ñoo xam ne sécurité la ñuy liggéey ci biir moo xam civil yi ci muxaddimatul xidma ak takk der yi am ñoo xam ne dimbale nit ñi nga xam ne dañuy daanu ak ami jafe-jafe moo xam sappoor la moo xam croix rouge la moo xam yu ni demee waaye ci biir loolu it mu ànd ak liggéeyu commission culturelle bu yaatu mooy exposition bii ñu la doon leeral léegi nga xam ne am na ay activités culturelles yu bari yoo xam ne def nañ ko ci biir màggal gi muy wane fi lépp loo xam ne moo aju ci jaar-jaare jumaa ji waaye ren jii nga boole woon ñu ak association bi nga xam ne dañuy li dañuy yëngu ci wane eh, ñi nga xam ne dañoo bind ci sëriñ bi ci te sëriñ xaadim Seex Xaadim Muntaxa mii di seen jawrin ak sëriñ bàyyiloo ñu àndoon ak ñun tamit ñëw ci biir exposition bi ñoom it def fi liggéey bu am solo ay professeur université yu bëri teew nañ fi bi ñu koy ubbi sëñ Cheikh Khadim mi moo ñëwoon ubbi ko mook sëriñ Afia ñu def fi ay panel yu yaatu ay waxtaan yu diine yoo xam ne gaaral nañ fi téere yu bëri gëstukat yi ak ñi nga xam ne xam-xam ñor na leen ñu bëri ñëw nañ fi ngir gëstu loolu su ko defee nag ci biir loolu ak liggéey bi ni mu doon doxee ak yi nga xam ne tënk nañ ko ci dañuy jox kàddu gi sëñ Abdoulahat Bousso Mokhtar mu leeral la lépp ni mu demee bismillahi rahmaani asalaamualeykum wa rahmatullahi wa sëriñ bi ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziyaara bu baax ci bis bu tedd bii nga xam ne ci lañu génn di la ci ndokkeel it di la ci sargal bu baax itam ci liggéey bu rafet bii nga xam ne jiite nga ko ba ñu egsi ci tëj lii di ñaan ci barkeb Cheikhul Khadim ndam yi di yokk yokk yokk rek tey gën a jëm kanam ni mu nu masa mel rek mel na nu ko gën ren waaye yal na la suñu borom taqalee ki ndam nga taqoog moom ba faw di nuyu sëriñ Cheikh Ahmadul Khadim mii toog di ko ziyaara bu baax di nuyu ak a ziyaara bokki taalibe yépp Serigne bi maa ngi lay nuyu ci turu daayiratu Muxaddamatul ma ci njiitul Serigne Afia xëy na yoon wi moo xat circulation bi téye ko waaye mi ngi egsi léegi Serigne Afia di yëkkati kàddoom tàmbalee ab nuyoom ci Cheikh Mouhamadul Muntaqa di ñaan suñu borom mi nga xam ne dara tëwu ko mu bàyyil na ko fi lu yàgg yàgg yàgg yàgg ba mu motti li mbooleem ay yéeneem lépp lu mu naal te naalal ko Serigne tubaab mu sottal ko ci loxoom te nu ànd kook moom di la nuyu bu baax di la ziyaara bu baax di la ñaanalit suñu borom bàyyi la fi lu yàgg yàgg yàgg nga yàgg a liggéeyal Serigne Touba bi te yàgg cee am ay ndam di la wax ne rek daairatu muqaddamatul xidma mi ngi nii tey di la wax ne na taxawaay yi nga xam ne daan nañ ko taxaw ci jumaa ji ci jamono yi màggal defewaat nañ ko nañ ko daan defee àndati ko itam ak ñañ ko daan àndal ba am sax ñu ci dolli ko ren lu jiitu màggal gi ñëw dañ koo njëkk a waajal ni ñu ko waajale mooy dañoo tënk mbooleem li nga xam ne mooy liggéey bi ni mu war a doxe ak niñ jàpp ne suñ ko ni defee dana yomb ci taalibe yi yomb ci ñu koy def te du am benn jafe-jafe ñu tàggat ci mbooleem ñi nga xam ne ñoo ciy liggéey te nekk ci biir dëkk bi génn itam dem ci dëkk yi nga xam ne mbooloo yi nga gis tey jii bàyyikoo nañ fa war a ñëw Touba ñu defal leen foofee ñoom it formation bu mel ne bi ñu defal ñi nga xam ne ñoo dëkk fii ba ñoom ñëpp ñu àndandoo yeewu ci liggéey bi ak doxin wi man koo ci itam xam niñ koy doxe ba kenn ku nekk bu dajeeg moroomam fii day mel na ñoo mas a dëkk ñoo mas a ànd di liggéey loolu sëriñ bi moo tax liggéey nañu lit bu weeru safar wi teraw ba léegi ñu ngi ci jumaa ji di liggéey waaye bi màggal gi desee juróomi fan nag la mbooloo yi tàmbalee ñëw ànd ak ñun liggéey bi waaye liggéey nañu ko ba fii ñuy egsee alhamdulilahi rabbil alamin suñu borom dogal na benn werante amu ci benn jafe-jafe amu ci genn juuyoo itam amul ci liggéey bi te loolu tàggatu gi nga xam ne tàggatu tàggati woon nañ leen ko te lajnatu saxaafa euh, bi nga xam ne Serigne Abdoul Ahad mii moo ko jiite ak lañ lajnatu tanzim bi nga xam ne Serigne Fallou Mbacke ñoo ko moo ko moo moo ko jiite ñoom ñaar ñoo ko seqoon tàggat bokki taalibe yi ba ñoom ñëpp ñu bokk wenn yoon boo xam ne ci ñuy liggéeyee loolu bokk na ci li nga xam ne moo jàppandal liggéey bi waaye itam amal na it mbooleem li nga xam ne daana ko amal ci ay activité culturelle ci ay waxtaan yi nga xam ne mooy jiitu màggal gi yépp def nañ ko bi nga xam ne moo ci gën a rëy te ñu defee woon ko fii ci mbaarum xisbu tarxiya mi yàlla dogal na keroog sa jëmm ju tedd ji moo ñëw présider ko ñaanal ñu tëj jataay boobee yeneen jataay yi nga xam ne it ñu ngi ko doon amal ci jumaa ji wala ci euh, penc bi yooyu yëpp def nañ ko nañu ko daan defee ci njiitul euh, comité commission culturelle bi nga xam ne Serigne Abdoul Ahad moo ko jiitee liggéey bi nag kon mbokk yi ni ko waxee woon sëriñ Afia egsi na circulation bi rek moo xawoon a xat moo tax waaye ba mu jógee yàgg na liggéey bi nag sëriñ bi ni ñu la ko waxee ñi ngi ko ànd ak mbooloom ay daayira yu bari yoo xam ne dañoo baaxoo di ànd ak daa daayiratu Muqaddamatul Xidma ci liggéey bi bokk na ca daayiratu muxaddamatul xidma bu Louga sëriñ Xaadim Taysiir jiite ko bokk na ca daayiratu muxaddamatul xidma bu Dakar sëriñ Góora Saw jiite ko ilhamul latiful xabir sëriñ Asan Yadd ak Baye Abdou jiite ko Lamp Fall sécurité sëriñ Ibrahima Seen jiite ko xidmatul xadim bu waa Eaux et Forêts sëriñ Babacar jiite ko safinatul aman sëriñ Modou Guèye jiite ko xidmatul masalik sëriñ Tayba Ndiaye jiite ko xidmatul masalik beneen sëriñ Bamba Sall jiite ko daayiratul istiqaama sëriñ Maam Thierno Thiam wa kaana xaqan sëriñ Masamba Thiam Diop Fathul Xafaar sëriñ Seer Ndiaye ànd ko itam ak docteur yi nga xam ne ñoo nekkoon ci infirmerie bi nga xam ne moo fi nekk waaye foofu nag sëriñ bi docteur yooyu am na ñu ngi lay seereel seenu taxawaay ndax ku ne xam ne ne màggal gi barab bi ni muy xate day metti lool rawatina nag su dajee ak ajjuma ajjuma yi démb ji day képp ku yàlla dogal nga jaar fi mujj nga yërëm leen lool ndax coono yi nga xam ne jànkoonte nañ ko ci nit ñi ndax nit ñi bu ñuy ñëw dañuy àndaale seenu xër te ñëw ci bari ba ñuy ñëw ànduñu woon ak wér moo tax ñu bari daanu nañ fi démb waaye yàlla defal na leen sutura ak seenu xerañte ak seenu njàmbaar ba lépp dellu si jàmm kon nag sëriñ bi nañ leen ñaanal bu baax ñu suñu borom yokku leen te defal leen tawfiq foofu it danañ ci profité gërëm ci docteur Ndeye Maguette Diop mi nga xam ne moo jiite euh, district sanitaire bi te nga xam ne lépp lu nos lu nosu liggéey bi ci loxoom la ko la la la la tegee ndaka noonu professeur Daouda Ndiaye mi nga xam ne sëriñ Mountakha moonu ko boole moonu boole woon ak moom jaarale ko ci sëriñ Cheikh Awa Balla moom sëriñ Moustapha Basirou moom it diirub ñetti at yi at mu ne lépp lu ñu soxla ci liggéey bu jëm ci wàll googu daf cay taxaw taxawaay bu mat sëkk bu rafet boo xam ne taxawaay mënu koo féete kaw indi na fi lu baree baree bare bare ci ay jumtukaay yi faj ak ay garab yoo xam na tax na docteur yii seenub liggéey gën a yomb gën a jàppandi bari na loo xam ne suñ ko doon wuti man man buñ ko buñ doon xaar ngir man koo am ca hôpital yi rek lañ koy mën a amee waaye indil na leen ko ba mu jege leen ba nga xam ne ku accès ci ñoom la ca war lépp danañ ko man ba bu fuy jógee buy dem du am benn jafe-jafe loolu dimbale na leen ba suñ borom defal na leen sutura defal leen tawfiq ba ñiñ faj ñëpp suñ borom def na ci tawfiq kon nag sëriñ bi loolu mënees la ko woon a ñàkk seereel waaye ñu lay seereel it cant goo xam ne ñu ngi koy sant mbooloo mi lëkkale pharmacie département bi ñoom it ñu am taxawaay lañu ci infirmerie boobu ci wàllu garab di ko toppatoo garab yi fi am ñu ñëw di xool yi nga xam ne jeex na ñu di ko dindi yi nga xam seen jeex na ñu dindi ko yi nga xam ne war na fee am ñu taxaw ba mu am na mu war a amee ba lépp di jàppandi ajjuma june mbooloo mi fi nekk di faj bu dikkee danañ fi fekk lañ fi war a fekk ci ay garab loolu nag taxawaay bu rafet la boo xam ne laaj na ñu xamal la ko ba nga xam ne ñu ngi taxaw taxawaay bu mel noonu naka noonu docteur Serigne Abdoulahad Faye ak sëriñ Abdoul Aziz Thiombane pharmacien ñoom ñoo coordonné liggéey boobu ak docteur Ali Guèye ak waa TAM ci njiitul docteur euh, Abdoulaye Sare ñoo daal sëriñ bi seen taxawaay ci liggéey bi rafet na lool ba rafetaay mënu koo feeti kaw waaye nag loolu lépp soxna Ndeye Maguette Diop mi nga xam ne moo ko coordonné moo ko moo ko jiite. ci biir cant yi itam ñu lay seereel cant gu ñu sant soxna baa mun Muntaxa moom it ku jàpp ci liggéey bi la. woo xam ne euh, cant gi war ci moom sax noonu lott nañ ci waaye dañuy ñaan nga jottali nu ko yow ngir mu gën a mën a jot ndax taxawu na mbooloo bi lool taxawu na daayira bi lool waaye taxawu na itam daayira yi nga xam ne ñooy liggéeyal Serigne Touba ci barab bi lépp lu mu war a def ci barab bi rek ci ay taxawaay def na ko kon nag nga sant nga jottali nu ko suñuy cant bu baax a baax baax ak suñuy ngërëm ak suñuy ñaan ne ñu ngi koy ñaanal bu baax suñu borom guddal aw fanam te may ko wér yokk ay xéewalam ci biir bi ñuy léew léegi dañoo fàtte woon daayira xidmatu rawdu ci njiitul sëriñ Daawuda Jóob waaye ñu lay seereele Daawuda Juuf Balla Juuf Balla Juuf euh, cant gu ñu sant policiers yi nga xam ne ñoom lañu ñu affecté fii ci barab bi nañu ko sàkkoo woon ca ndaje ye waxoon leen ne na ñu tànn nit ñoo xam ne ñu mën a jaxasoog nit ñi la ñuy doon ñu am expérience la ñuy doon ndax barab bi xër moom ñi fi ñëw ñëpp xër leen fi andi ak yittewoo goo xam ne dootuñu gis dara noonu lañ ñu ko tànnale ñi fi ñëwu ñëpp ñi leen jiite ànd nañoo ko yar ànd nañoo ko teggin dégg nañu nit ñi fi ñu toll ak seenu xër ba dañuy jàppalante ak ñoom liggéey seenub liggéey na mu ware waaye nag lépp ñu def ko ci ak dal def ko ci ab yar def ko ci ay teggin loolu it sëriñ bi ñu ngi la koy seereel seen kilifa nuyu na la fii léegi naka noonu waa Sapor. sappoor ñoom it ni ñu ko baaxoo defee ajjuma yeeg lépp dañuy ñëw di fi liggéey liggéey bu am solo ren jii ni barat bi meloon rawatina démb ci ajjuma ji liggéey nañ fi liggéey yu am solo yoo xam ne ñu ngi la koy seereel ñoom itam ngir seeni cant rëy na lool ndax seen taxawaay moo ni toll naka noonu waa Croix-Rouge ñoom itam def nañ fi liggéey bu am am bu am amum solo li ko waral nag mooy barab bi day barab boo xam ne ñëpp fi lañ jëm si te kenn ku nekk buy ñëw ak xër lay àndaale moo tax jafe-jafe yi day bari lool ci wàllu wér-gu-yaram ñii nga xam ne ñoo yore wàllu wér-gu-yaram faw bu ñu ànd ak xol bu yaatu rek liggéey bi dana sooxe waaye ñoom ñëpp nag def nañ ko ci xel mu dal ak lu yaatu ñu lay xamal ne liñ fi faj ren ëpp na junniy nit yoo xam ne seet nañ leen ci biir fajukaay bi loolu mooy li nga liggéey yi nga xam ne mbooloo mi taxawe nañ ko yépp ñoo doon taxawu siyaara yi ñoo doon taxawu nit ñi ñoo doon taxawu itam barab bi ñoo doon itam barab bi bis bu yàlla sàkk amul benn bis boo xam ne setaluñ li biir jumaa ji setaluñ li penc bi lépp ak li muy xat xat xat xat danañ fexe ba lépp ñu bale ko ba set raxas ko ba set te doo am benn jafe-jafe euh, loolu mbooloo mii nga gis ci sa kanam ñooy ñi ko def di ay góor ak ay jigéen am na ci ñoo xam ne it ñoo féete woon waañ wi di togg di toppatoo nit ñi di tàngal kafe yi di def yee ñu war a def yépp kon dal ci tënk mooy bépp liggéey boo xam ne ñi ngi koy def muy jëm ci màggal gi rek mbooloo mii liggéey nañ ko fii ci barabu Cheikhul Khadim bi ci jumaay Serigne Touba ji ñu di la ko seeral nag di la jébbal seenub liggéey di ko teg see loxo nga tegal nu ko ci loxoy Cheikh Mouhamadul Mountakha mi nga xam ne mooy moo fi nekkal xaadimu rasul kon nag sëriñ bi ci ngir bañ a guddal loolu bu gàtt ci lu yaatu ci liggéey bi waxtu wi daaw nag dañ fee toogoon waxoon la sunu bëgg-bëgg ak sunu yéene ci liggéey bi yàlla dogal nga doxe ca doxin woo xam ne doxin wu rafet la waaye doxin woowu soññ soññi taaliba yépp ba ñu doxe ci doxin wu mat sëkk waxtu wi daaw dañ daa fekk ñu andi woon fi ay tapis yu yaatu ñu soxla woon tapis yooyu lu ko mën a setal ci ay machine nga soññee ca soññee boo xam ne soñ mooy soññee bi gën a gaaw te mooy da nga caa jiital sa loxo njëkk ak jënd ay machines yi nga xam ne moom la ñu war a liggéey loolee ba ko taalibe yi gisee mu jàjj leen lool soññ leen ba fi mu ne alhamdulilahi rabbil alamin sëriñ bi li fi nekk ci ay machine fa tabarakallahu yaakaar nañ ne jamono yi ñu toll moom doyandi na sëkk la ca des nag mooy rek di sant di gërëm ca la weesu di wax ne ren nag jafe-jafe bi ñu gën a am ci ñaar yi nga xam ne ñoom lañu ñu sëriñ bi dénk muy jumaa ji ak barab yi mooy ndox loolu nag ku ne wan na ko xam ndax kër yi sax dañoo manqué woon ndox ndax ni màggal toll te xëy na neexul a fàggul ndox waaye boo ñu sañoon ren sunu li ñuy njëkk a ñaan mooy waxtu wii déwén bu ñu fi teewee ñu am sunu oto bopp boo xam ne mooy duyu ndox di ko andi ci jumaa ji ak ca armeel ñaar yépp bu ñu mënee am ñaari ñaari oto yooyu loolu mooy suñu yéene ndax barab bi barab bu ndox la te dafa laaj ndox muy baree baree baree bare mun a ñàkk ndox njàpp meeg raxas beeg faj meeg yëpp dara mënu cee ñàkkum ndox kon su manqué ndox rek day indi jafe-jafe te ndoxum màggal xam nañ ne mënut a yéeg ci ci mënut a jaare ci tewo yi ba ñëw lu doy te luñ fi mën a denc balaa am juróomi waxtu juróom benn waxtu loola jeex ndax am na ñaari réservoir yu mag yoo xam ne bu ci nekk ëpp na 10 000 ci ñaar ci sooroor yi ak yi nga xam ne ñu ngi ci suuf ñu di leen duy waaye nag taxul ndox mi mën a doy teewul jànkonte nañu ay coono yoo xam ne ren ji ñaan nañu nga ñaanal ñu ci barkeb Cheikhul Khadim waxtu wi déwén buñ fi teewee moom buñ jàmbatati otom ndox na fekk ñu am ko fii am ko ca barab yi barab yi it na ci ay diggante yoo xam ne doy na waar lool ngir ñàkkum ndox mu metti te nit ñi indi seeni néew ñu war leen a waajal lu ne jànkonte nañ ci moom loolu nag sëriñ bi ñu ngi ñaan na nga ñu taxawoo woon daaw ci ak ñaan ako soññee ba ñu génn ci ren jiit nga taxawoon noonu ci ay ñaan ak ba ñu génn ci jafe boobu soxla yi nag yitte yi yitte nag wax nañ ne su su dee su suñ bëggee mu gaaw faju day doon jenn yitte yi jumaa ji nag mënut doon jenn waaye mën naa am ju gën a far jii nag mooy ji gën ji ci gën a far te teew ji xëy na am na yeneen yuñ soxla yoo xam ne ay am na ay bokki taalibe yoo xam ne liggéey nañ ci ne danañ ko andi ndax ñoom ñii di faj soxla nañu ab ambulance boo xam ne mooy évacuer nit ñi donte amoon nañ ci sax yoo xam ne dañ leen ko affecté waaye xam nañ ne district bi li am ci ay ay ambulance mënuta an mënuñu ko doyu leen sax ci biir màggal bu ñu fa affecté yenn mu defi taxaw dana gën a manquil seen effectif loolu bokk na ci li nga xam ne yu ñu sàkku la kon daal sëriñ bi ci tënk Euh, loolu moom daf mel ne waxoon nañ ko fi daaw mooy oto bi nga xam ne mooy jël mbalit mi di ko yóbbu donte nag ñu ngi lay seeral cant waa ko ñuy sant waa ICG waa ICG moom wax dëgg yàlla taxawaay yu am solo la ñuy taxaw ci màggal gi ku jaar fii rek gis nga seen poubelle yi niñ ko fi tege woon di ko roñ di ko yóbbu waaye ñoom taxawaay yu mat sëkk la ñu taxaw rafetlu nañ seen taxawaay lool waaye nag ñu lay jàppale waxtu ne nga fexe ba am loo sa yëf yi ñu dim ne bokk na ci yitte yi nga xam ne ittewoo nañ ko euh, kon daal sëriñ bi ci tënk euh, maa ngi tënk foofu kàddu yi nga xam ne moom lañ ma yónni woon di la wax ne ñett yi moom yitte la lool ci daayira bi benn bi mooy ñaari oto yu ndox yoo xam ne benn bi ngir armeel yi lay doon benn bi ngir jumaa ji lay doon beneen bi ci des mooy oto mbalit boo xam ne li ñuy ton ni dañ koy jëf ci oto yoo xam ne ñoo ko moom moomal suñu bopp donte nag ñi ngi ciy dimbale ndimbal la lu mat sëkk waaw seen taxawaay baax na sëkk rafet na lool ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax a baax a bi nga xam ne itam mooy euh, yóbbu ñu wére dañu it boobu it ñu ngi koy bàyyi xel bu baax a baax loolu daal mooy mooy yi nga xam ne mooy moom lañu tënkoon ren ngir jottali la ko di la sant bu baax di la gërëm bu baax ci ne nga nu taxawoo ci liggéey bi mosoo ñoo seetaan benn yoon waxtu bu ne yaa ngi jàppale rawatina ci màggal gi xam nga liggéeyu màggal gi ni mu diisee ci jumaa ji tax na lépp looy def mën nañoo wax ne suñ ko sañoon wax dañuy wax ne ñun nga jiital ci liggéey bi loolu yëg nañ ko gis nañ ko rafetlu nañ ko ñu ngi la ciy sant bu baax di la ci gërëm bu baax te ñaanal ni ñu ko tàmbalee woon foofu rek lañuy ñuy daanee la bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi wa kafa wa salaamun ala ibadihi alladina stafa asalaamaaleykum wa rahmatullahi bokki fi teew yëpp di ci jiital sëriñ bi li wane ne Rawdu Rayaahiin dafa àndoon ci liggéey bi ñu doon def fii te muy liggéey boo am solo ni ko sëriñ Cheikh waxe ndax li ñuy bind ci sëñ bi dana am ñu koy yëg di ko mën a fàggu ba ci mën a jariñu waaye dana am ñu bari ñoo xam ne mën nañ ko bañ a yëg lu mel nii nag day tax ba yëg gi gën a yaatu bu yëg gi gënee yaatu nit ñi bi mën a am ndind yooyu di ko mën a jàng di ca mën a jariñu moo tax bi nu ko yëgalee sàkku nu ànd ci dañ cee sawar lool ba yi nu jotoon a génn ci ay téere te yi ci ëpp di lu sëñ bi bindal boppam am ci yooyu dañ ko bind ci sëñ bi nu andi yooyu yëpp mu bokk ci liggéey noo ngi sant nag ñi na ko seqaloon ndax ànd nañ ko ci ànd bu rafet di sant itam ñi ko jàpp ndal ñi ko jàpp ci anam gu man di doon ku ci jàpp daal lu mu néew néew noo ngi koy sant sëriñ Ahmad Badawi xam ngeen ne moo jiitu raw doro moo ko jiite waaye dafa am ngàntul teew moo tax nu teewal ko am na ñu ma àndal sax waaye dañoo jàppoon ne ci kanam lay doon moo tax ñu am fuñ jaar mën nag ma jiitu leen waaye sëñ Mbàkke Abdourahman ak sëñ Mor Bousso maag ñoo ma ànd dañoo jaar ci kër ga ndax jàppoon ne ci kanam lay doon kon noo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di jéggalu ñëpp wa salaamu aleykum wa rahmatullaahi wa barakaatu. waxtu rek xam naa si jot na di nuyoo ak cant. ak ngërëm ñu bàyyi ko ci Cheikh Mouhamadou Mountakha ñu ci Serigne Touba di ñaan mu yàgg ci loolu te ànd ak wér ñaan yàlla suñu borom mu dëgër ko kàttanal ko ba mu àggale mboolem ay naalam ak yéenam ci yoon bi yëpp di yëkkati gën jaa tedd nuyu di ko ci teg ci loxol Serigne Xaafi Buso mi nga xam ne moo jiite daayira Muqaddamatul Xidma ak mboolem ñi mu ci àndal ñépp nag di leen sant bu baax ci turu sëñ bi ci seen taxawaay bu rafet ak seen jiite ni ma ko daa waxee rek yàlla def na yéen am tawféex yi sëriñ bi jegleen barab bii nga xam ne mooy fi ku gën a ñor yàlla def muy barab bi mu dëkk wal tutub lii thamma iskaana rabbi stajib wal tukammil maana way tudda tuubal liggéey tuubal la te fii ka tunda fii kon sëriñ bi fii mooy dëkkuwaayam bi nga xam ne tudd ko ci xasida yi lu bari te kenn séentuwu ko nii kon bu yàlla defee ngeen am itam am ci suñ borom tànn leen ci barkeb sëriñ bi ndax sëriñ moom mooy tànn ñu koy liggéeyal fii rek dara jiitoo ko ci liggéey bi kon nag bu leen yàlla defalee ndimbal ak taw tawféex ngeen lax laxasaayu dëddu àdduna sànni lépp jël seen lépp jox ko sëñ bi soxlaatu leen dara te xoolu leen dara lu may ngërëmu sëñ bi loolu sëriñ bi da leen ci sant leen ci gërëm te yàlla dafa defit seen posture ak seen taxawaay bi mu xam ko ànd ko yéen lu yàgg te nekkagul sëriñ Tuubaa bi mu nekkee sëriñ Tuubaa itam fu mu ko fekkoon rek mu gën koo yëkkati gën leen a jàpp lépp lu muy defee woo leen bëgg ñëw mu ànd ko yéen loolee nag seen taxawaay tax ndax ba ngeen tam leen liggéey ba nëgë ni liy firndeel ne sëriñ bi nongu na mooy mosu ci def lenn loo xam ne kenn rafetlu ko wala ko xam rafetlu kon nag yal na liggéey bi yàgg seen loxo ndam li ngeen ci ngeen am ci ndam ko fuuf ci kon taxawaay bii ngeen def mooy dalal gan ñi teertu leen dalal leen xaw leen ba liggéey bi jeex loolu doy neen sëkk ab liggéey ñaan boole ci jumaa ji muy ñaari liggéey di si yoo xam boole waaye lépp seen principe ak seen taxawaay mooy na ko koy kon ñu ngi ñaan ci barke suñu Tuubaa mu gën ko nangu te liggéey bi di ak seen loxo di gërëm it ñi ngeen àndoon liggéey bi di Serigne Cheikh Mbacke mi Cheikh Mouhamadou Mountakha dégg nañu kàddu yi mu wax fas nañ ko yéene bu baax itam di ko ànd ak yéen ndax loolu de xalaat yu am solo la xam naa jetaay bi xat sax kon ma jaaraat ci dama waxoon waaye dañ koy rafetlu ci ànd gi ñu ko ànd yéen ndax liggéey bi ñu ñaan ak ñu ko àndal yéen a jën ci am yàlla dimbali leen ci ci suñu Tuubaa di gërëm waa daayira Rawdu Rayaahiin ci njëtal sëñ Ahmadul Badawi waaye ci teewaayu sëñ Seexuna Mbàkke Abdul Wadoud ñu nga xam ne moo teew ci seen tur te ñoom itam ngeen àndoon ko ñun liggéey bi. ba yàlla def lépp sotti ba tey jii di bisu tàggatoo bi kon ñuy ñaan ci barke Sëriñ Tuubaa nit ñi fi teewe ren ñu te fi na ngeen déwér jàmm te kenn bañ a manqué te yitte ju fa yàlla faj ko jàngoro ju fa àndaaroo suñu borom saafara ko yitte yii sëñ Abdou Lahad wax léegi tam dégg nañ ko bu baax xam naa bu reesoo ñett fan ñeent rek dañ ci bokk toog waxtaan ci ñu xool nu ñu ko mën a taxawoo ba lépp sotti ba ni ngeen ko bëgg ngeen amee ko noonu ndax fii kat ñoo war a jiitu ci soxla yi yitte yi kon incha allah ndegam dégg nañ ko rek danañ fexe ba loolu moom saafara incha allah. di sant nag daayira yi nga xam ne ñoo ne ci biir dëkk bi ak ñi ci biir dëkk bi te ñëpp ànd ak yéen liggéey bi di leen ci soñ ñoom itam posture bu ñu ci amoon ñu fexe ba yokk ko te xam ne liggéeyee Sëriñ Tuubaa la as Cheikh Ibrahima Fall daa wax rek lu wàcc ci te war na ñëpp kon ku yàlla defal tawfeex nga liggéeyee sëriñ ji war saarifal hilmati li rabbi taala rajiyan saq yahu bihima imaini ماسكا بالكتاب ماسك درير بيد الخائن البصير المعين وهو يدي ورماتي وكنوزي وبه أرتجن خياد الحروني من به راب مرودسا bin hanidin